auzu billahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim asalaamaaleykum waa Sénégal seen nuyoo yëpp maa ngi koy teg ci loxo président de la république son excellence monsieur Macky Sall le président de tous les sénégalais monsieur le président de la république ñoo ngi lay nuyu nuyu bu sell di la ziyaar ci fu tedd fa nga jóge di wax alhamdulilahi rabil alamina ndax nag ñun yaay yi ñoo taxaw fii tey maa ngi wax ci kàddu maire yu jigéen yépp ana maire yu jigéen yi ak président conseil départemental yu jigéen jóg leen taxaw ñëpp xool ñun yaay yi président de la république ñun ay yaay lañ ñun ay yaay lañ ñun jàmm moo ñu jig ñun ñooy demander di tàllal suñu loxo comme nu ko suñu càmm ñi defee di la ñaan ci njekk ak teraanga di tàllal suñu loxo suñu borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne ku fi falu rek moo la fal ku fi falu yàlla moo la fal yàlla la ñuy ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fal la vingt 2024 incha allahu rabbi ci kàttanam ndax danga ñu ko nangul ñépp la ko ñaan te di nga ko nangu li fi ñépp wax mënuma cee delluwaat waaye président damay delluwaat nag di wax ak ñun ñii toog ñun ñi nga xam ne ñoo fi toog tey doon ay maire te toogal population bi mu may njëkkee ci sa ministre yi di njëkkee ci sa directeur généraux yi di dellu si ci ñun maire yi ak député yi président def nga lépp joxe nga lépp confiance nag dafa fort te jox nga ñu ko comme jox nga ñu ko nag dañ koy delloowaat ci population bi président liggéey nga lépp li des mooy li ngay joxe nay àgg ci askan wi li ngay joxe na dem ci maire yi maire yi tamit nañ koy jox seen askan maire bu fi falu askan wa nga xam ne moo gën a xeebu moo gën a ñàkk solo moo la fal bu la joxut kàttam doo falu te carte yooyu la ñuy dajale indil ko président de la république son excellence monsieur Macky Sall kii nag kàddoom la am am na kàddoom ñu nit wëlbati ko nag ñaan ko xam na ne moom lim ñu jaral ñu nit war nañ ko koo jaral mu delloo ñu ko te dinañu ko delloo kon nag ñu it nañ ko delloo confiance bi mu am ci ñun ministre yi li ñu yor nañ koy tasaare nañ koy tasaare président joxe nga nañ koy tasaare du ñëpp nag ndax am na ñuy liggéey ndax ñun dañoo bokk ci département Kaffrine yaa ngi dégg Ablaye Sow ma ngay tasaare sa ministre yi fii ñu bari ñu ngi tasaare waaye am na ñoo xam ne tasaare wuñ ñi tasaarewul nañ tasaare mu dem ci askan wi président def nga lépp waaye yëf yi nay egg fa mu war a yegg wallahi azim niñ ko bëggee noonu la ko kilifa diine yi bëggee noonu la ko ñi ëpp bëggee olof neewul li ñëpp waxee dëgg de daf ne li ñi wax mooy dëgg li ñi ëpp wax mooy dëgg ndax ñëpp mënuñu laa nangul yow président de la république yàlla mooy coppati ci nguuram sànni la ci kàttanam waaye yàlla mi la ko sànni xam na ne lim la sànni yaa ngi koy jëfe yow ñi nga am